Ramadan a ngi weeru uh-huh. yërmande ante ak laabal xol yi Aliou. waaw ci njàng. ñu ngi ci am déet. waaw yéen a góorgóorlu bu baax. ñu ngi ci am déet. vraiment dina raw rek moom xam nga ne man su ma jógee. yéen bii daa mel ni li ma fàtte xëdd. ah yow leen ma de. su dee yow. yow ma de. alors kooku yéen mu yéex. waaw yéen yéen ay mag jóg di tëdd nelaw xale yu ndaw doon jóg ngeen yeema. waaw jiital ko doon jóg ngeen yeema topp seen njàng mi rek. ngeen defe ne loolu jàmm. gis nga rek nekk ci leen bi yaakaar. ah yéen mag ñi nga xam ne yéen bu ñu tëddee dañu sonn. surtout moom damay dox rek di wër rek. ah. ba tey dama toog tey te yow génn ma ko. maa ngi fii si yéen. maa ngi fii si yéen. looloo. fii sama kër li ak sama mag ko moom. waaw baax na. loolu rek. na ngeen def ak suuf gi nag. suuf gi dara ñii parce que yéen a ngi woor seen weer yii. waaw baax na. da nga war a tëj bu leen seen papa jàpp seen papa amul jaaxaan de. ak li ma jàngaloon bu ñu doon moom loolu lan la woon lan. mooy lan la woon ak suuf. ah loolu moom xam naa loolu moom mën naa ko moom. loolu moom mën naa ko lool waaye nag xale bëgg naa ngeen jàngal ndax ma xam samay eh, dara ci lislaam waaw moom moom lay farata ak suuna lu koy waral daal ak lu koy loolu daal ak njàpp yooyu daal daal ngeen bëgg a waxal daal mu xam ko si. ah loolu bëri xabaar yi. waaw loolu laa bëgg. waaw kon yow da ngay wut KM bi. waaw da ngay jàngal wala day doon tàmbali. ah kon kay mën nga tàmbali léegi sax moo gën ndax demoo fenn. da ngay dox rek te weeru koor nee nañ ci. def lu baax moo ci moo ci ëpp solo mais léegi daal boo defee benn ñu ngi koy def fukk kay wala ñoom def lu baax rek léegi seen bàyyi moom gisuma ko bu neex moom bu fi daanaka nga jàngal ko sama ji ko. waaw wàllum farata rek farata farata parce que dañoo bari ñàkk ñàkk daal moom da cee ñàkk waaw. waaw kon xanaa da koy tàmbali rek. waaw rajo mën naa nekk mën demoo benn maa ngi. waaw. xanaa daal di ñàkk la gën a. ñett juróom juróom-ñaar ah waaw lan nga tàmbali nga xam si ne waaw. te xale yi gis nga du may ay yëngu yàlla du ko gis nga doo ko wax ci olof ma xam ko mu leer waaw maanaam am amal maa ngi jëloon kon waaye xam nga waaw xam nga waaw. 家がどれのビールサファリとかあるんですよね。wala fànn bi waaw ñaar ñi mooy raxas sa kàttan waaw raxas sa kàttan boo ko déggee lépp loo xam si ne ngay def ñu rek ba dina ba mu ëmb si naan sama saa yi def yéen ñëpp waaw yàpp mooy lépp lépp lépp ci kàttan la bokk waaw raxas moom si nit. waaw so boobu mooy ñaar bi ñetteel bi mooy. nga raxas sa loxo ba fii waaw ba si coppu jàll bi fii lu jënd. waaw coppu jàll waaye raxas suñu tam coppu jàll ba ci coono bi. ba fii nii. waaw coppu jàll bee tàmbali ba si coono bi. lii mooy coppu jàll. waaw lii. waaw waaw lii mooy coppu jàll boo ko ba pare lii lii. xam naa ne waa kay. ba tàmbali fi raxas ko ba fii. ba fii da nga ko ñëw ba def nii rek. bàyyi képp day tooy. ah man sama jàpp daal la ko ñëwee wala nga jàpp ba tooy ba fii nag wala nga def ko ba fii fii rek lan la yem fii rek. waaw ñetteel bi kii mooy ñeenteel mooy massage. massage waaw massage si bopp. waaw ndax massage mooy jël si mooy xaar. dañ ko jël xaar. waaw léegi laaj bi dëgg yi laaj. seen xaar mooy xaar. waaw xaar bi toujours nag. waaw dañ ko jël xaar. waaw li ko doon wax xaar yi ba pare. waaw dañ ko jël xaar. waaw li si des mooy daanaka sa tànk. ak sa jëf yi. waaw say maanaam ba say biir. suñu waaw waaw. boo koy xaar nag loolu lu ma askan bi rek tànn bàyyi nag. bila bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam kenn bila bu la xas bu la ma bu la bàyyi benn appel bu ndaw comme si rajo loolu bi yow xamee da koy def dugub sama yii loolu la ya xarit dina di wax sawar moom waxtaan rek man lu ma la yokk sawar ak mu waaw dama gis ne tuuti dina ko jàpp sawar moom mu la su ma la dañuy yaakaar sawar moom lu waay def sawar la lay def nee na du yor loolu mu toog waaw sawar dañuy yaakaar fi mu toll nii ñun ñun ñu ay mat la. xale bu jekkee rek du ñu sawar. waaw du mu wax sax. yaa ngi boobu la ci la nit. waaw benn bés mooy bomb sa bomb mooy ràññ mooy def nii bomb sa bomb sa wécc. waaaa bomb sa bomb sa wécc li si toppaat mooy gaaw. gaaw gaaw boo déggee da nga ko ñu day baax a baax a jàpp mooy cër bu nekk bu baaxee ba sa topp la bu nekk ba pare ba topp la dem fa. xanaa damay bàyyi ba léegi. waaw ah. bu subaa. Ah. waaw moom sax la ma ma expliqué ko comme ni koy defee carrément. waaw ah. est-ce que loolu est-ce que jàpp na loolu la woon jàpp bu baax waaw li nga wax nii daal. moo gën a yem moo gën a yem maanaam. ma yor la nga jàngal ma ko ma xool su ko defee su ma mënee demal sama bopp demal sama bopp waaye nii nga def nii daal am na solo daal. waaw am na solo kon bu subaa bi ma koy teel a fàtte. waaw am na seen suñu toogoo rek. après nga dem ba jàngal comme ni koy defee incha allah. da ngeen góorgóorlu nag. waxtaan lii nga fi wax nii. lu am solo boo ne boo nekkee ci àdduna loolu ndaw dafay góorgóorlu bu baax a baax. suñu baay bi nag ñëpp xam nañu ne saa yàlla waaye lu baax xam naa. ñu wax loolu dinañ góorgóorlu bu baax a baax. Alioune dama góorgóorlu de. sa weer yi sa weer yi dégg nga dégg ah comme ma la. maam man bàyyi laa ji. ngeen jàpp ko rek. ngeen jàpp ko. waaw ngeen doon teg ko. ngeen doon teg ko. ñëpp a ko doon sa weer dafa ko baax. Ah, man de maa sama njëriñ. waaw man de maa sama njëriñ ak seen bàyyi nag bu ñëwee. ñoo xamante ni waaw teg naa ne waaw moom la def. da nga ko doy da nga bàyyi fàtte na suñu cosaan da bàyyi fàtte na suñu cosaan. waaw bàyyi sama papa la. fàtte na suñu cosaan. waaw papa de waaw papa léegi xool na loolu xool loolu. léegi teg naa la moom ma lay defal. loolu la yow loolu rek. soo ko di xool sama maam. su sa bàyyi ba fàtte na suñu cosaan ñu ngi fii. waaw baax na loolu nekk. jëf na la ba mu lay yem soo mu téye nga bàyyi ak a mënul ne yenn saa yi ñuy jubóo yenn saa yi ñuy xuloo nag ak a mënul ne ñaar mënul xaj la indi man ak Mouhamed ak sama yaay léegi maa ko bàyyi la. dégg nga jël tax ñu mënoon ñu doon doon fi nekk rek yéen a bon doxalin rek yéen. waaw. Ramadan a ngi weeru uh-huh. yërmande